asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi am mbégte euh, dellu siwaat fii pour mën a séq euh, lenn ci waxtaan ci li ñu bokk ñun ñëpp te mënuñu koo séddu te loolu mu ngi tudd Sénégal Clédor ak euh, daam wax nañu lépp ba pare dañuy fàttali rek. ci ban Sénégal la ñu nekk aujourd'hui dañoo nekk ci Sénégal bi nga xam ne léegi nit disparaître fii léegi c'est devenu une réalité maanaam on a des cas de disparition malgré toutes les forces de défense et de sécurité yu ñu am ak tous les services de renseignement yu réew mi am ay nit ñu ngi disparaître léegi ci dëkk bi ban Sénégal la ñu toll Sénégal bi nga xam ne léegi dañuy rey nit te du am enquête du jàpp kenn y a aucun responsable à tous ces crimes et meurtres yi nga xam ne dafay am di am ci ay lieux yi xam ne état bi moo ko téye état bi moo ko moom su ma waxee biir violon police loolu l'état sa responsabilité est totalement engagé su ma waxee ci ay manifestation yi nga xam ne le rapport d'Amnesty sax wax na ni ci manifestation wu mars 2021 yi sur les 14 morts 12 yëpp ils ont été directement tués par l'ordre par par la puissance publique maanaam par l' état l' état est responsable boobu ba léegi déggu leen enquête déggu leen ñu jàpp kenn ban Sénégal lañu nekk Sénégal bi nga xam ne li ñuy woowee charte charte ndey réew mi bi nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp kenn ku ne war ko bàyyi xel te fonk ko président moom waat ci ba pare diggi ni moom moo koy sàmm aar ko muy constitution ak lépp lu mu àndal ci ay traité yoo xam ne Sénégal la ko signé. muy pacte international pour les droits relatifs aux droits civils et politiques muy euh, charte des droits de l'homme charte yëpp yi xam ne mu ngi suñu préambule constitution aujourd'hui dañoo am état bi xam ne daf koy dëggati di def lu safaanoo ak loolu ñëpp teg si seen bët gis nañ ay nit yu ñuy toroxal ñu gis Sénégal bi xam ne léegi jàpp la tëj la dafa nekk léegi une réalité euh, damay dégg sax Moustapha Diop ne léegi kaso yi mooy suñu 47e département fii Sénégal hmm. nga xam ni euh, ay téeméeri téeméeri xale yoo xam ne defuñu waxuñu waaye lay jàpp yóbbu la tëkk la euh, di foowee liberté doomu aadama ban Sénégal la ñu toll mooy Sénégal bi nga xam ne l'État dafay user de manière excessive euh, à la violence di exercer violence boobu ci askan bi violence bi nga xam ne dañ ko exercer sur le plan wala boog sur ci cadre maintien de l'ordre public maintien euh, ñëpp nangu nañ ne en cas de nécessité la ñu war a soog a utiliser euh, la force et su ñuy utiliser force boobu sax elle doit être euh, utilisée de manière graduée et réversible maanaam Sénégal li fi xew ni aujourd'hui mënul xew ci dëkk lii moo tax ma egg ci conclusion gëm ni Sénégal instant yi nekkatul dëkk bu dee nag ñun ñëpp dafa am un contrat qui nous lie gars yi di ko woowee un contrat social di wax ni lii moo lié mbooleemi askan ak seen dëkk ñun contrat boobu il a été rompu euh, par l'action euh, d'un nom et de son régime man je préfère les appeler un gang aujourd'hui le Sénégal est dirigé par un gang ce sont des bandits ñoo ñuy jiite euh, boole ci abus ils ont abusé presque sur tout ànd ak violence ils nous dirigent avec une grande violence ànd ak di ñu di ñu sàcc aujourd'hui lépp lu am ci dëkk bi ay scandale la ànd ak un amateurisme bi nga xam ne dañuy violer les règles élémentaires de bienséance de gouvernance euh, d'élégance maanaam ay nit la ñuy xam ne nit yu tekkiwul dara ñoo jiite aujourd'hui Sénégal li yëpp nag bu amee ci dëkk nag dañu war a taxaw nag ndax dëkk kat bu ñu fàtte ni ay institution la ay norme la waaye askan la ñett yi ñoo téye dëkk ñun Sénégal institution yi càng nañu aujourd'hui on a des institutions de Macky man institution yëpp reconnaître ma ci benn institution ce sont des institutions du président teg na fa ay nitam mu ngi ordonné ñu koy defal lu ko neex ni mu ko neexee au vu et su de tout le monde ba pare ñëpp ne tekk di ko xool muy benn ay loi yan loi lañ may wax fii aujourd'hui ñëpp xam nañ ni y a un poids deux mesures fii daf fi am kumba am ndey ak kumba amul ndey ci biir réew yu nekk am na ñi xam ne am nañu sañ-sañ di saaga di xaste ak di menacer ñu ngi fii dox si lay soxla kenn woowu leen kenn fontowu leen am ñeen ñee xam ne ñu ngi leen di fitnaal di leen toroxal di leen di leen di leen sonal ndax ils ont simplement été euh, des personnes qui ont dit que ànduma ak président lii nag bu xewee ci dëkk nga xam ne institution yi càng na kenn wóoltu ko ndax y a une crise de confiance dans ce pays de confiance entre ñun ak ñuy jiite askanu Sénégal wóolatuñ ñuy jiite askanu Sénégal wóolatuñu suñu justice wóolatuñu suñu force de défense et de sécurité man je vois aujourd'hui des voyous dans les FDS ay nit yoo xam ne dañuy ñëw di toroxal doomu aadama di toj ay vitre doomu aadama il y a beaucoup de conventions yoo xam ne Sénégal moo ko signé sur les traitements sur les sur les sur les violences sur les tortures sur les sur les sur les actes yoo xam ne euh, yuy dégradé euh, yu yu inhumain mais aujourd'hui suñu ay forces de défense sécurité ñoo koy def dañuy jàpp ay xale dugal leen si ay oto jël seen ay matériel ak seen ay rangeuses di ko dóor ay xale yoo xam ne defuñu dara defuñu absolument rien nit yoo xam ne sont des citoyens yu ñu jàpp nii kese ci absolument rien di leen dóor lii dans un état sérieux la war lu am donc nos institutions nous ont trahis par la par le fait d'un seul homme qui s'appelle Macky Sall nos lois ne sont plus respectées et appliquées euh, convenablement à l'égard de tous les citoyens et lii tamit benn nit la ak ay complices am yu mu am dans la magistrature dans les forces de sécurité dans les dans l' administration territoriale au sein de l' on a beaucoup de complices yoo xam ne de Macky Sall yoo xam ne ñoom ñoo ànd ak moom euh, di saboter dëkk bi. lii nag bu amee ci dëkk nag wax dëgg yàlla le dernier rempart kenn rek li mujj nekk après les institutions et les lois c' le peuple peuple boobu nag fii Sénégal. déjà dañ ko dañ ko dañ ko dañoo dañ ko ñàkk may benn benn réalité bi nga xam ne moom moo ko moomoon muy le pouvoir de destituer un homme qui a trahi son engagement et son serment boo demee dëkk yu mel ni ay États-Unis au moins sax la loi prévoit des mécanismes yoo xam ne de destitution qu'ils vont appeler impeachment wala ñu woowee ko mu leen neexee mais la loi prévoit dans un cas de haute trahison wala dans un cas bi xam ne nit ki euh, def na ay jëf yoo xam ne safaanoo na ak lu dëkk boobu bëgg ñu am moyen yu mën a dindee président boobu en France bii ñuy wax euh, on a la possibilité de destituer un président la loi le prévoit ñun fii Sénégal dafa mel ni dañoo nangu suñu ay àq ak suñu yelleef ba aujourd'hui on n'a aucun moyen institutionnel et juridique de démettre quelqu'un qui a trahi son serment et qui a violé son serment donc aujourd'hui lenn kese la constitution wax te loolu ñu koy nangu gëm te d'accord ko di ko doxal muy la souveraineté nationale appartient au peuple peuple bi kese kon aujourd'hui moo des may fàttali nag peuple boobu que responsabilité bu réy la ñu am devant l'histoire responsabilité tam bu rëy la ñu am aujourd'hui devant euh, le présent tey jii ñëpp xam nañ li Macky di def nii narul narul dellu ginnaaw Macky du taxaw Macky dafa mel ni jàpp na ni ay góor taxawuñ ci kawam. Hmm. Macky dafa mel ni respecté tur léegi sénégal yi. Euh, ñu bëri maa ngi dégg ñu waxu kilifa diine kilifa diine yi wax kilifa diine yi amatul lu ñu mën a wax kenn xaaratul si ñoom ñu wax Macky créé na benn décrédibilisation totale. dañu nga xam ne sax ñoo nekkoon les acteurs de la société yoroon réguler société bi mag yi def na ba ñooñ sax léegi kenn talatu leen mag yi mu ngi boole sénégalais entre ñoom aujourd'hui Sénégal dafa am leen lu ko ñëpp envié woon ñëpp dañoo ñeewoon ci dara muy la stabilité bu ñu amoon ak la cohésion sociale ñaar yi pourtant la constitution daf ko daf ko andi ci ci njëlbeenam maanaam le peuple sénégalais et très attaché euh, à sa stabilité ak à ses valeurs culturelles et culturelles stabilité boobu la yi instant yi nekk di menacé Macky kon li muy menacé lu grave la li muy menacé Macky a trahi la constitution du Sénégal Macky a trahi le peuple sénégalais Macky a trahi tous les engagements yoo xam ne daf ko jëloon devant askan bi taxawaat sol ay caqam ne dina ko taxawee te tey taxaweetu ko donc lii bu amee si dëkk nag askan bi foog mu génn ndax man dama bokk suñu gëm ni ñaar rek le président yor mu nekk li nga xam ne mooy lewal nekkam ci biir réew bi suñ njëkk mooy la légalité mooy def na élection yoo xam ne il est sur le sceau la légalité Macky n'est ñun ñëpp Sénégal xale yi ndaw sax xam nañu 2019 Macky dafa sàcc élection yi. Hmm. Macky a volé les élections aujourd'hui on a de des des des sociétés israéliennes ak ñëpp ñu commencé génnee euh, seen ay rapports di wane naka leen fayee 2019 pour ñu manipuler opinion sénégalaise bi pour ñu liggéey ci sàcc élection Macky Sall yi. donc 2019 Macky Sall dafa sàcc élection yi donc ñun gëmuñu ne Macky est légal muy benn waaye la légitimité Macky est-il légitime dans un pays bi xam ne aujourd'hui Macky ñemewul génn ci mbedd bi dox sulam donc Macky n'est plus légal il n'est plus légitime askan bu tollee fee dafay jël responsabilité man nag j'en appelle à toutes les forces vives de ce pays je parle pas des dealers on a beaucoup de dealers euh, dans la classe politique mm. man je parle des vrais leaders li mu lay waxal euh, aujourd'hui le débat n'est plus ci ay wax n'est plus ci ay condamnation de principe n'est plus ci ay ci ay ci ay ci ay naxante ak si ñaan nan na diw wax na diw wax fii aujourd'hui li fi xew ñëpp gis nañ ko képp ku ci waxul complice nga ak koo mënti je parle de la société civile je parle des religieux je parle de tout le monde képp ku gis li xew aujourd'hui Sénégal pare waxoo ci tu yow complice nga donc xaaruñ ci yow nga def quoi que ce soit li nga doon def ba taxaw noppi ko nel sa noppi te nga bàyyi ñu ñun ñoo war a xeex lii ndax lii xeex koy régler donc aujourd'hui j'en appelle à tout le monde dañu war a génn euh, marquer l'illégitimité de Macky Sall euh, daama clé dool juñ dañ ko léegi nous allons organiser une une grande marche wala boog un grand bi nga xam ne incha allah on va le faire à la place Sénégal yëpp génn may fàttali waa Sénégal Mali bi nga xam ne suñu ay frères lañu Mali ba seen dëkk président di leen fontoo ak doomam di leen di leen ñàkkal solo askan bi dafa jug sous le leadership d'un imam ñu wax imam Dicko ñoom ñëpp génn taxaw sur une place di fa yendu di fa fanaan juguñu xeex andiwuñu gànnaay andiwuñu paaka andiwuñu jaasi génnewuñu bomb waaye ñëpp tasendoo toog ni ñun yellootoo ñu jiite lii suñu droit la constitution moo ñu ko may dañoo war a am sañ-sañ bu ñu demee ba yëg ni kii kat war nañu ñu génn ne ko doo ñu ti léegi nag chaque fois dañuy dañuy wax ne la lutte moom toujours oppresseur bi mooy déterminer yan arme la ñuy xeex moom ñun on veut pacifiquement démettre un président bi nga xam ne et son gang bi nga xam ne ñu ngi yàq dëkk bi ñu ngi saboter dëkk bi s'il veut utiliser la force contre ce peuple là le peuple sera appelé à se défendre di moom dama koy dama koy woo askanu Sénégal bi yëpp ñun yàlla daf ñu jox bakkan yàlla forcé ñu ne ñu sàmm suñu ay bakkan képp ku jukk bëgg bëgg sànq bakkan boobu da nga am devoiru protéger bakkan boobu ndax bakkan boobu du sa moomeel sa borom moo la ko dénk moo xam nervi la moo xam policier la moo xam gendarme la képp ku jug bëgg atteindre atteindre sa vie bëgg dog sa dund da nga am devoiru xeex ak moom jaamarloo ak moom ñun fii leen toll aujourd'hui Sénégal Sénégal bi ñu toll aujourd'hui jàpp nañ ni ci ay fan yu néew incha allah nañ leen woo ci dat euh, ak ci place bi nga xam ne euh, ville la na la nekk incha allah ndax place boobu dafa am solo trop par rapport ak histoire du Sénégal may fàttali toujours ni Sénégal du askanu ay yambar ak ay buqat mars bii rek jigéen yaa ngi doon féete talaatay ndeer di fàttaliku jigéen yooyu nga xam ne elles sont pour bañ ñu noot leen ñun fii dëkk bii am na ñoom Cheikh Omar al Fouti dëkk bii am na ñu mel ni ñoom almaami Maba Jaxu Ba dëkk bii am na ñu mel ni Cheikh Ahmadou ba dëkk bii am na ñu mel ni si Sidil Hadji Malick am na fit ñee xam ne ñoom ñooy ñoom Cheikh Ibrahim ñas ñii ñëpp c'était des leaders yoo xam ne kii n'étaient pas couchés dëkk bi musul am ay kilifa yoo xam ne dañoo yaafus wala dañoo dellu ginnaaw ay nit la ñu yoo xam ne qui étaient debout xamoon seen wareef taxaw si àqu borom bi subhanahu wa taala di xeex pour évoluer wala boog améliorer Euh, la vie de leurs concitoyens ñun islaam dañu sant daf ñu sant nga bëggal sa morom li nga bëggal sa bopp islam daf ñu sant nga gën a bëgg sa frair plus que ni nga bëggee sa bopp islam daf ñu sant saa yu ñu gisee dul yoon ñu jug xeex ko ak suñu ay loxo mooy par l'action mhm. ñu ko mënul ñu wax ñu wax ci mettitlu ko suñu demee mënul ñaar yëpp ñu soog mettitlu ko suñu biir xol ñun islaam daf ñu woo dans dans euh, dans l'action dans l'engagement dans le refus et euh, dans et dans l'absence de compromission maanaam ñun ci yii lañu islamo incha allah rabbi ci fan yi di néew incha allah nañu ñëwaat pour gën a leeral manifestation bi ñu bëgg a def ak ni ñu ko nar a defee incha allah rabbi te gëm nañ ni bu ko defee ni ko war a defee euh, saay-saay bi nga xam ne moo ñu toog tiim ñu jàpp ñu di ñu sonal di ñu toroxal ak di ñu fitnaal dañu abal suñu réew incha allah rabbi donc ñu ngi leen di nuyee ñëpp leen ziyaara salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.